asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum diaspora bi ah man Pape Fall Sénégal Pape Fall àdduna Pape Fall Wally Ballago Seck maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal yi yëpp di ñaanal suñu yaay di ñaanal suñu yaay Kine Diouf Diaga yàlla yàggal ko fi loolu tey di ko souhaité au bon anniversaire di ko xat bés yi toujours maman loo dund longue vie man sa doom Pape Fall nekk ci Wally Ballago Seck bi maa ngi ñaanal yàlla nga sut sunu baay ba aw fan yàlla yàgg la fi ci kanamu njaboot waaw baay Mouhamed yaay Mouhamed Seck yaay Sidna Alim yaay Moomi yaay Ndeela ah yaay Ababacar maa ngi maa ngi lay ñaanal maman nga yàgg kanam ci kanamu njaboot maa ngi wax na ci turu Waly Balame Seck di wax ci turu Ramdan di wax ci turu Faramareen yëpp waaw dina ñaanal nga yàgg fi lool waaw. loo loo yàgg loo fi yàgg rek loo fi gën a yàgg rek moom. mais kan mooy jaaga waaw jaaga mooy sunu yaay bi nga xam ci dafa mën a muñ lool dégg na Papa Thione gërëm na ko ci àddina bi ñu nekk ba ñëpp xam xam naa làq na ngërëmu borom këram waaw loolu moom lu ma xamul moom bokk ci. nan ngeen yéen ñi fréquenté këram lan ngeen dundee ak moom dañuy dem kër Papa Thione di fekk du leen jaaga xanaa xanaa mu baax diñuy teg ci diine diñuy teg ci lislaam waxtu julli bu jotee lu ñu jàpp ñu koy bàyyi ak ku mënti doon boo dëkk ci wala boo dëkk ci kër gi danaan leen dam leen ngay julli ji dam leen ngay jàpp di ngeen julli ji ñëpp ñu jàpp ji dem julli ji waaw loolu moom luwaa boobu moom moom Thione Seck ak fi tëraloon déedéet xam kër ga moom xam mun ku mu ku mu juró parce que parce que parce que maman Kiné ñi nga xam te dëkkuñu si Kër Penda ñoom la gën a téye ci ipi ay doomam waaw bu dee yàlla dëgg rek la bëgg a dégg ndax ku dégg sa bàmmeel bu fekkee ni yàlla dëgg rek la bëgg a dégg moom ñi ñi nekk si kër ga te jur ñoom la gën a teg ci kaw ci ñun jur wallaay li si barke alxuraan bi waaw mu fonk loolu diine ak lislaam foo ko fekk kurus gi moom mi loxo bi te bopp bi bopp bi doo gis catu karaw bi day muuru la gëm yonente bi la gëm Sëñ Tuubaa la yaakaar waaw loolu ko def si suuf ñu ngi def social yoo xamante ni nit ñi xam waaw ah, di def ngir yàlla te yàlla parce que l'islam dana wax ne booy def sa loxo ne jor bi sa loxo càmm duñ ko yëpp comprendre nga loolu alxuraan loolu alxuraan loolu mi ngi ci man ci teg sama bët lu ci bëri bu bu ñëwee si kër ga day laaj diw ndax lekk nga ndax def nga lii wala def nga laa day mën a sori ah, lay toog gaa yëpp ñëw ci kaw photo bi toog ci photo bi toog waxtaan ak lépp waaw mutu xool bët mun na mutu xool dara waaw kër ga daal moom jàmm fa am te yàlla fa jàmm gën a sax waaw li nekk ci yaay ji nag moo nekk ci doon muy wàllu yi. ñu gis complicité bu dara am waaw loolu am na. loolu a déglu gis naa mu ni dégg ñu indi laat ko beneen son way waaw parce que xam nga lu waral loolu xam nga lu waral loolu maanaam maman Kiné nekkul dara bàyyi njabootam dafa bëgg njaboot tey lu mu ñàkk rek mën naa ne ay njabootam moo ko ñoo baxal xam nga ñun ñi nga xamante ni dañoo nekk dañoo nekk ci moom dañoo nekk ci Wally kooku ñoo xam loolu SMA ñi nga xamante ni parce que ñun duñ ay dof tey maire bi bu bu demoon leneen wala mu am leneen lu mel ak ñun ñun doon après niñ kenn moomu leen waaye yàlla dogal na li may wax lépp dafa nekk ci moom man dama tagg fu dégg dama tagg kenn dama ne kenn yàlla nuyu na la waaye nit lu nekk ci yow rek sama sama xam nga gis ko man dama koy wax ak Serigne Touba waaw en daal bëgg na njabootam te mer ki lu ñàkk rek ak njabootam moo ko xam. waaw waaw mooy yar bi rek ak teggin bi te Wally dafa ruus yaay ji ba du ko ci xool waaw wallaahi li ci waaw moom dafa dafa ruus dafa ruus yaay ji loolu ba mun ko ba du ko waaw. xam nga loolu moom fi mu man loolu man maa la ci mën a wax dara. koy wax mooy ñaanal ko yàlla. yàlla yaatal ko fi. mais premier anniversaire mu waaw loolu tamit maanaam naqar la bànneex parce que maanaam Thione dem na waaye Papa Thione dem na waaye Papa Thione ngi fi. comprendre nga li tax ma ne Papa Thione dem na waaye Papa Thione seede fi mooy waane ngi fi. ku jur ku jur doom déewoo wala mu jaay ko wax ne doom déewoo yaa ngi waale maanaam maanaam Papa Thione dafa yar ay doomam. wala dafa jullite dafa lislaam ko raw wali ku baax la wala tey mën naa ni wali buy làqatu mën naa la ko Sénégal nag duñ xam ni dañuy bàyyi ba après doon ñu naan ñu yëgoon xam nga ndongo loo moom na ma si yàlla seet ko wax ni bala ngeen maa xam damaa dee ma soo wax tey yàlla dogal na fi ñoom nelawee da ko ñëpp xam comprendre mais fukki wala mel ni Wally Seck bu ko Sénégal yi amoon wallaay bii si barkeel xool lu bëri dana saa ci dëkk Wally si social Wally si def lu baax te du ko wax bëgg na sax lu muy def su seen sax maanaam bëgg sax ku ko filmé wala ku ko def dara yàlla rek a tax may wax dara jëye sëñ Tuubaa barke alxuraan bari waaw na lépp lu muy def ba ko def te yàlla tax maanaam kenn mën ko xam alxuraan moom daal ñëw tamit ñu gis sa relation ak waaw dugg ci biir oto liyee ko lan waaw mooy mooy mooy mooy li ma la wax sànq Wally xewul kenn Wally xewul kenn ñu bokkul ndey ak baay ñu bokkul ndey moom moom ñi nga ñi nga xam si ne ma yàlla baal ñi dox si mbedd bi sax ànd noo seen xel sax bu ñu ko Wally da ngeen écrire Wally dawul kenn seexlul kenn xam nga ku ma ne Pape Fall mi tey ko koy accepté lu ma lay wax neex yaa man lu ma neex laa koy wax lu nekk ci poste dama ko ñëw jël lu nekk ci poste dama koy ñëw jël lu ne laa koy wax ba sànq nii ci mujj ñu ngi gisante sànq nii ñuy waxtaan dafa ci digg nii ma si temps saa tey am tey tey am na nu mu doon demee tey bu ko neexoon si mu doon maanaam man tey bu ma yàlla dimbale ba ñëpp xam wax dëgg fa yàlla macha allah li may invité li may moom moo tax après ki nga xam ne ko woon ay jamono da ci war a yem ba yëg si kaw seen wàll wala may wala may ah, ay vidéo wala ma nit ñi wala ma ami fan dem ba am dem ba am groupe whatsapp samay famille samay fan te jël ma ko muy Pafal famille ma la di nuyu ak déportage ñoom it ah di leen nuyu waaw ku ci mel ni Baara Sall jàmm Touba Sénégal ñoom ñëpp maa ngi leen ci Touba ñoom ñu ñoo ma defal ñoo ma defal ñoo ma tijjee groupe WhatsApp Pape Fall famille di leen sant di leen wax ne nag waa Seck ci groupe bi waa Ramdane ci groupe bi ñu leen di bégg ñu leen di siyaar yan kàddu ngay dénkaat suñu yaay yi nga di ko ñaanal rek yàlla gën koo may xulub mu gën a góor góorgóorlu di gën a yokk ñaan yi parce que Papa Thione fa mu tëdd ñaan dafa soxla jamono ñu toll. ñaan rek la fa soxla jamono ji ñu toll Papa Thione la fa soxla jamono ñu toll kon ñu ñaanal ñu wax suñu yaay mu gën a yokk ñaan yi ñu nit ñu gën a yokk ñaan yi di ko ñaanal. bu kenn fàtte Papa Thione parce que Papa Thione mënumaa la. monument la monument bu mag yaa ngi dégg kon yóbbu na Sénégal foo xamante ni niñ jàppoon nañ ni mooy loolu di waykat mag nag waaw ba pare a ñemee dëgg nag Papa Thione ku koy xeex wala ku koy bañ ci loolu nga koy bañee te ko wax dëgg Sénégal bëgguñu ko wax dëgg Papa Thione soo gisee lu bari fi na nit ko di ko wax wax dëgg ni muy wax dëgg ba pare jàng lu jay kenn ak koo mënti doon boo ñëwee lim lay wax dana koy wax amul kii amul kaa dala koy wax man maa wax ak yow barke alxuraan mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen barke Serigne Saliou kon dañ na ñaanal mooy daw li ñu ñaanal leen nit ñi fi nekk parce que ñoom loolu rek lañ soxla ñu ne ñu fi lool. waaw léegi lan dégg dootuñu wax ci dëgg quoi. mooy li ma la wax rek mooy li ma la jamono moo toll foo xam ne dégg waat li mooy jamono soppeeku na waaw. jamono moo soppeeku léegi da nga xam lu mu bëgg kuy jay nit ñi wala ku la yaa wala dara man néew ma foofu man nu ma waay di jox yaa ma ko yéen a jox ma ko waaye xaar may ma ma lay marataat wala ma lay kii yàqu ko ñu ne ma noonu ak ko ma di waaw man day ànd tax loo loo may yéene nag yéene moom xam ne li ma ko war ma ko jox jox loolu la Sénégal yëpp nag di sama soxna ah madame di ko ñaanal jàmm yàgg di nuyu samay doom sama staff nekk Touba sama président mi suñu président bi staff bi Dame Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax waaw am naa staff sama staff Touba dégg naa wax naa sa sama biir wax nee naa la am naa groupe WhatsApp wax sama samay sant ñoo ma ko tuddee Pape Fall famille ñoo nekk la de barke Sëñ Bamba loolu lépp sant yàlla la tabal loolu wallaahi la ci dara dama jékki-jékki rek ma taal sama connexion gis groupe bi wàcc ma envoyé vocal wax ñu ne ma ñu ne ko tuddee ñu def fan ci sama téléphone loolu lépp grâce à Wally Ballago Seck moo tax man dama sëkk ñëpp li ma am tey fi mu doon maanaam ci arbi ci musique fi mu doon maanaam li ñu ne ma bàyyi xel Wally la man li ma am Wally la dama koy wax di dund dama koy wax di dee. loolu bu nekkoon Wally fi mu doon maanaam fan man man man man man nu mu demee noonu. Wally ma tàqale woyaat Wally ma tàqale woyaat. Ah, Wally ma tàqale di dugg ci boîte di woyaat Wally ma tàqale lépp. maa ngi koy sant nag ku gërëmee ndax olof Ndiaye nee na ku na bu lëkk gërëmee lan. waaw waaw bu lëkk lekkee alalam. olof na ko gërëmee cooy. kon man su ma nekk sama olof na ko naa ko gërëmee waa Alioune balaa mu sell doomi Kine Diouf jaane doomi Papa Thion waa Papa Thion balaa mu sell ah kontaan naa waaw kontaan naa. kañ ngay takk ñaareel. ah wala neen dama may ñaareel moom nag laa di. góor kàttan baax lool ci góor gu tëlee ba góor gu gaaw a daanu am ka lu yomb la contactel gaaw ci numéro téléphone yi ngeen di gis